aouzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina walana muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallam tasliman a ja'al kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawi xalbi arshida bàkki waram tuba mbokk yi nga xam ne si yéenay bàyyi xel <coughs> seen premier numéro muy seen émission thème de la semaine euh, ñu nekk ci euh, fukki fan ak ñett ci euh, weeru weeru saxbaan di tombeek mardi 7 avril 2020 Eh, ñu ci dalal suñu jëwriñ suñu xarit suñu mbokk taalibe sëñ Ababacar Mboup ñu war waxtaanee ci eh, xew-xew jamono fi jamono ji toll rawata ci réewum Sénégal ak li ci àdduna bi <coughs> kon suñu tem tey nekk ci eh, le Sénégal face au coronavirus ñu am mbégte wax dëgg yàlla comme noonu ko waxee di dalal suñ sëñ Ababacar Mboup comme xam naa suñu Babacar gannaaw bañ la nuyoo xanaa dañ lay bàyyi rek nga nuyoo. ak mbokk taalibe yi nga xam si di xam nañ ni yaa ngi ci groupe euh, Majmahun Nurayni fii Fawaa'idid Daarayni. ginnaaw virus bi virus bu ñu xamulu woon la donte nag am nay mbokk muy coronavirus euh, am na ci yu ñu xamoon épidémie bu amoon ci deux mille un deux mille deux deux mille ak bu amoon ci deux mille douze deux mille treize euh, muy SARS ak MERS am na. beneen boo xam ni bii bi mu dikkee nag ñàkk a xam giñ ko ñàkk xam moo tax am na données yu bari yoo xam ni amaguñ ko ci waaye bu ñu sukkandikoo ci Chine ga nga xam ne fa la tàmbalee te ñoom ñoo ci ëpp xëj na ay xibaar walla boog ñu raw ci ñu bari ci ay xibaar am na benn bilan euh, épidémiologique boo xam ni ñoom publié nañ ko le 24 février 2020 mu am ay données yu am solo yoo xam ne na ci booba ci 44 672 euh, cas yoo xam ni confirmé waaye gisoon nañ ci 87 pour cent feebar yooyu yépp ñi ci tawatoon ñoo ngi amoon ba 79 ans 1 pour cent amoon nañ 9 ans wala lu ko 1 pour cent amoon nañu 10 ans ba 19 ans Euh, maanaam amuñu woon vingt ans diggante dix ba vingt ans trois pour cent amoon nañu quatre vingt pour cent wala ñu ëppal ko soixante quinze pour cent yi yi feebaroon yëpp ñoo ngi woon ci province bu Hubei quatre vingt pour cent yi <coughs> euh, ñëpp euh, ñi mu daloon ñoo ngi ko jëlee ci Wuhan googu wala bokk fa la leen dale wala dal ga mi nga bàyyi ko ci Wuhan ñu gisaat ni 31% pour cent yi tamit yi confirmé won dafa donon ay infection bénigne euh, lool nak lu am solo la xëñ na dañ ci wat euh, ay 81 infection yi ay infection bénigne la won 14 yi rek lu infection yu sévère la won nga xamni day am ay dyspnée ay fréquence respiratoire supérieure ou égale à 30 <coughs> ampoules par minute Euh, ak yeneen yu bëree bëri nga xam ni dan na am ay euh, mënoon naa doon yu xaw a am jafeñ-jafeñ dana sévère daal 5 pour cent yi <coughs> euh, cas yi doonoon na ay cas yu critique taux global de létalité bi nag ñu ngi toll woon ci 2,3 pour cent ndax 1023 décès la amoon ci jour boobu ci 44 660 12 boko xolé 2,20 nangam lay doon donc arrondir ko def 2,3% 0% de décès ci ñi amone 9 ans ño xamni ay xalé euh, 0% la won su ko fait euh 0% yi tamit mo amone faatu ci cas yi nga xamni dafa bénin moy infection bénin donc au cas masculin la motax ñu wax bénin Euh, su ko defee 49 pour cent ci décès yi tamit euh, ñi cas yu critiques yi 49 pour cent ñoo ci décédé donc nga xam ni sax du majorité bi euh, ñi crit ñi amoon cas yu critique du ñëpp ñoo faatu la ci ëpp faatuwuñu 8 pour cent de décès yi ñoo ngi diggante 70 79 ans 14 virgule 8 pour cent de décès yi tamit ñoom ëppaloon quatre 80 pour cent wala am nañ 80 ans wala plus. fi ma mën a fiyewu rek mooy résultat yi moom ñoo ngi koy indi euh, danañ ko jël di ko comparer boo gisee sax euh, cas yi ñuy joxe am na indifférence différence gap bu rëy rëy ndax am na benn site boo xam ne si en tout cas dafay jël cas yi par par par kii mu ngi toll ci 1 million cent nangam te déjà ñoom. chiffres yi joxe ñoo ngi tollu ci un million trois cent et quelques mille waaye toute façon daal <clears throat> ñun mënuñoo fii lu dul ci loolu ndax am na jumukaay bu ñu ko mën a vérifier ndax am na wala amul teyit it yooyu ñoo fi nekk donte nag médias yooyu yàgg nañoo wax lu dul dëgg ndax ñoo ñu waxoon ci 11 septembre euh, lañ ñu waxoon ba ñu gëm ko ginnaaw ba ci la nga xam ni américains yi ñoom ñoo daaneeloon euh, ñaari tuur yi ginnaaw bi lañ ñu wax ci Saddam ay wax yu bari yor na ay armes yoo xam ni de destruction massive ginnaaw bi biñ ko reyee ci la ñu xam ni soo a xam ni dara du ci dëgg ñooñu waxaat ay wax yu dul dëgg ci Xaddaafi ba rey ko ñooñu waxaat ay wax yu dul dëgg ci état islamique ba bi état islamique tasee rawatina bi ci Russie duggee ci la ñuy soog a gis ni quarante personnes yu ko jiite woon yëpp daanaka duñu ay julit noonu lañ ñu waxee ay yu dul dëgg yu dul dëgg ci yeneen ak yeneen ak yeneen ba la ko jiitu aussi kon nag ñoom it bu ñu waxaatee tey ay xibaar it wax dëgg yàlla ku mu neex mën nga cee tey ku ko mën a vérifier nga vérifier ko rek siiwal googu ñun li ñu ci man def nañ ko

bu ngeen seetloo tout da ngeen xam ne Sénégal amuñu ñun politique boo xam ne si bu ñu dogalal suñu bopp la la plupart du temps bu France defee rek ñun tamit dañuy emboîter la pas donc euh, da ngeen gis Macron daa def discours ni day tëj France jeudi lundi ba Macky Sall def discours ni day def euh, état d'urgence <clears throat> voilà Macron dafa def euh, décision ni dafay tëj école yi Macky Sall deux jours wala trois jours après moom tamit mu ni tëj nañ école donc loolu noonu lay demee daal ñun bu xiinee France rek daal di taw Sénégal xaaroon ci président Macky Sall muy wax di tudd yàlla wax dëgg yàlla ñi ñiy wax loolu man dañ ñoo ma jaaxal mais Macky Sall jaaxalu ma ndax bu fekkente ni dañoo nekk ci république bu laïque état bi laïque appareil bi dafa laïque dañuy dem a dem ba conscience yi sax dafay laïque la laïcité c'est quoi la laïcité comme ni ko Montesquieu euh, waxee rek waxin wu gàtt la wu simple woo xam ne ku ne dana ko mën a comprendre laïcité àndut ak diine contrôle diine antrul àndul ak diine contrôle ak diine mais lay laïcité dafa areligieuse areligieuse mooy loo xam ne reconnaître wul diine xam nga loo reconnaître nag moom jeexal nay wax misaal mi ma ko mën a jox pour mu leer ci ñi may dégg mbokki taalibe yi sëñ Abdou bi muy wax ci yaakaar naa rajo ba dafa ne képp koo xam ne ñun Serigne Touba mu murit sëriñ Touba ni ko yàlla def neex na la wuutalewul la ak sunu bopp ni sunu bopp rek lan la def képp koo xam ne nag ni ko yàlla def naqari na la xamatuñu am nga déet ak koo mën a doon xamatuñu am nga ñàkk a xam ni kii amul koo xam ne si xam nga ni jàpp nga ni amul kooku da nga ko dul boole ci dara donc puisque ñun euh, diine noonu lañ ko jàppee cette laïcité là bi nga xam ne moom lañ doon ci France et je rappelle que euh, depuis euh, la constitution en fait de <coughs> de la 5e république française en 1958 après France am projet de, de la communauté française constitution boobu moo ca dox ba 59 bi Sénégal di jëlaat euh, sa première constitution daf ko ci dougal hein, laïcité boobu 60 ñu defat ko 63 gis nga ko 2001 la même chose changé wuñ ko batay parce que même principe bi lañ ci bay donc ko xamni nak mom reconnaître lu yalla ci li doxal reconnaître en tout cas diine ci li doxal nan nga mëna xaaré ci mom mu wax ci yalla bu ci waxoon kañ ci la ci la ci la wara a nit ñi donc il faudrait que lolu aussi nit ñi xam ko té xamit ni ci suñu tour lañ ko def lolu ci la doon wax légui nga likkale ko ak audio bi ma def sank ni cest à nit ñi li ñu bëgg ni ñu ni ñu taxawee ni ay jullit lañu koo ci wax ñu ne ñun jullit lañu ñun ay murit lañu ba noppi ci sunu tur ñu mën a nongu ñu daganal ci ak jaay jaay jaay jaay jaay jaay jigéen di jaay boppam ñu mën a doon ni ay jullit xàqan lañ ba noppi ñu daganal ci sunu tur jigéen mën a jaay boppam ñu ni ay jullit lañ ba pare ñu mën a daganal ci sunu tur ñuy jaay sàngara ñu ni ay jullit lañ ba pare ñun ñi ñépp souscrire bokk ci société boo xam ne carte lay def muy Lonase ku bokkul ci LONASE yéen ñi may dégg ak man mi wax ñëpp ñu ñoo moom LONASE société boo xam ne si day carte lay def te yàlla tere na ko ñu bokk ci société boo xam ne si daganal nañ fi nekk nii ak ak ngóor jigéen président Macky Sall dem leen ci interview bi mu waxoon iTélé bon dama xamul ndax mi ngi sama téléphone kon danaa ko dugal léegi nii dafa wane ni góor jigéen ñi ak association yi leen di jàppale sañ nañoo yëngatu te état du dal seen kaw état amul noonu ñoom problème bu ñu am problème askan wi lañ koy amal kon ku mel noonu ku séntu ci moom mu tudd yàlla yow yaakaar naa ni yaa nekk ci illusion waaye du ko tudd te it d'ailleurs wax na ko ba noppi tamit tudd ko. li ma bëgg daaneele rek mooy vraiment di naqarlu mesures yi ñu jël ci tëj euh, jàkka yi ak jumaa yi ndax euh, bu fekkente ni dañoo wane ni rassemblement dafay favoriser fi mu nekk nii propagation virus bi man dama naan d'accord alors kon lépp luy tax rassemblement am rek dañ ko war a téye. waaye man gis naa ni benn biis bu ëpp jàkka ci Sénégal man xaw ma bus boobu te pourtant bus yi nit ñi ñoo ngi ciy dugg en tout cas euh, euh, transport interurbain bi nekk dakaar mi ngi daw te xam ngeen ni pandémie bi actuellement ma nga dakaar te pourtant terewul bus yi ñoo ngi circuler donte bus bi 10 personnes a ci nekk loolu rassemblement la alors gis nañ ni marché yi aussi nit ñi ñoo ngi fay daje liy daje ci marché yi dajewuñ ci jàkk yi jàkka yi Sénégal ñun ñëpp xam nañ ni bu ci am ñaari sàppe jàmbaar nga bu ci am ñetti sàppe moom kooku jàkk ju ma ju mag a mag la donc benn sapé bi léegi-léegi day peine pour am te mën nañ fa respecter véritablement mise mesure d'hygiène yi waaye mën nañ respecter aussi la distanciation sociale kenn ku ci ne waxuma la 1 mètre mais mën nañoo taxaw un mètre ndax euh, Euh, véritablement loolu sunna la ci julli gi donc buñ ko bàyyee yàqu ci julli gi gis nañ ay nit ñu bari di ko def waaye gis nga ni lu waral ñu jóg rek xabtalu ci loolu nañu tere jàkka yi tere jumaa yi ñun nit ñi daje fa véritablement ak mesures yi ci def nii ñoo ngi ma yónnee léegi genn kilifa goo xam ne si euh, vraiment procureur woolu woon na ko ngir rek ci biir këram jàkka dafa nekk foofu fa lañ julli ñu ñu ñu ñu ñu woolu ko xam nga loolu vraiment lu lu garaaw a garaaw donc yooyu nag moo lay wax ni la am na luy ñëw ci kanam tuuti soriwul te xëj na jullit yi moom seenu nelaw yegg na ci yooyu yëpp mënuñu ko xam waaye loolu man maa ngi koy ñaaw lu véritablement te terewul terewul bu fekkente ni xëj na mën nañoo woyofal loolu waaye 4 avril bi bërki démb président daje na pale dajale na fa lu gàtt gàtt lu ëpp juróom fukki nit te ñoom ñëpp takkuñu masque respecté wuñu écart wu 1 bi te terewul def nañ fa seen i tëgg seen i junjum wax seen i yëf def seen euh, <coughs> cérémonie parce que mënu wona a ñu def cérémonie bobu damay les très souvent ñi may dégg sama cadeau ni Sénégal amul indépendance 4 avril Sénégal amul indépendance 4 avril kon lan motax Sénégal di fêter indépendance 4 avril Sénégal Dakar particulièrement dafa bokku ci enjeu yi nga xamni ni franc-maçon yi dañ ko ciblé ndax toujours damay wax ni la franc-maçonnerie bi mi dugg Sénégal bobu révolution France sax amagul alors léegi nak biñu duggé euh, Sénégal ñenti loge ñëk am Saint-Louis la woon mais loge bi ñëk ubi Dakar en 1899 lañ ko ubi waye mi ngi tenir premier atelier le 4 avril 1900 voilà li le Sénégal di fête mo waral liggéey bobu ñuy defal loge bi liggéey bobu franc-maçon yi di def liggéey bobu ñom ñuy def diko ko defal saytaane mënuñu ko fam faaw ñu def cérémonie bi ca palais ba euh, tout ce qui n'est pas nécessaire tout ce qui n'est pas essentiel plutôt doit être interdit tout ce qui n'est pas essentiel doit être interdit alors kon julli ci c'est pas essentiel du ji di ci c'est pas essentiel mais symboliquement tenir en fait euh, euh, cette fête, commémorer la fête de l'indépendance, la soi-disant fête de l'indépendance, le 4 avril, c'est essentiellement tax kenn une cinquantaine de personnes D'ailleurs, nañ fa wala lu ko ëpp ca palais ba def donc loolu aussi il faudrait que du ci gën ci conscient xamni ñun dana am ay enjeux yu nekk suñu kanam mais malheureusement comprendre ñuko ko rawatina un sama mbokki taalibe yi très sincèrement ñun bu ne dañu bëgg réduire sëriñ Touba ak liggéeyam bu rëy bii ci daje jàng alxuraan jàng xasida naan kafe rek tàggatoowaat très sincèrement man dama xamul loolu man jaaxal na ma sérieusement sëriñ Touba dama leen di poser la question yéen ñi may dégg di sama ay mbokki taalibe bi sëñ Touba bu fekkoonte ni ay xibaadaat rek a tax ñu jàpp ko du moom dong lañuy jàpp sëñ Touba julli taxul ñu jàpp ko ndax sëñ Touba indiwul julli ci biir réew mi fi la fekk nit ñi di julli te ñe doon njëkk julli jàppuñu leen sëñ tubaa koor taxul ñu jàpp ko sëñ tubaa jàng alxuraan ak jàngale ko taxul ñu jàpp ko ndax fi la fekk ay daara ci ay daara la jaar sëriñ tubaa gàmm moo taxul ñu jàpp ko sëñ tubaa bëgg a dem màkka jote ceeg tubaab bi taxul ñu jàpp ko mboolem yi ñu xam wird sax taxul ñu jàpp ko ak a sikar ak ak ak ak ak ak jàng wala bind xasaay taxul ñu jàpp ko ndax je rappelle très souvent que ni la loi de bi de mille euh, huit cent euh, cinquante sept moom moo doon organiser l'enseignement du Coran à Saint-Louis tubaab bi ba ñu ko jàng alxuraan ba ñu ko ko jàngale waaye tubaab bi seen objectif particulièrement te nit ñi dañuy jaar à côté toujours mooy fexeel ba di def lu naqar yàlla te boole koog di def lu neex yàlla booleel ñaar yi rek moom di ko def xam na ni yàlla du nangu loolu kon day fexe ba ngay def loolu dun la bul def li neex yàlla waaye day fexe ba ngay def lu naqar yàlla boole ko donc looloo leen boole loon boole woon te bu ngeen seetee euh, le procès verbal numéro 3 bu 5 euh, septembre 1895 d'après le conseil privé après avoir entendu les rapports de Merlin et de Leclerc et fait comparaître Ahmadou Bamba a été d'avis à l'unanimité qu'il serait lié de l'internet au Gabon jusqu'à ce que l'agissement causé par ses enseignements soit oublié au Sénégal donc kon gis qu'un enjeu un enjeu culturel un enjeu euh, idéologique idéologique enjeu de non soumission parce que bu 1895 vous créé Afrique occidentale française même année bi autorité bi soxla ay subalterne ak ñu ko jàppale ak i relais am ko mu jàpp dégagé ko c'est parce que xam na ni dafay gàllankoor autorité ma donc loolu moom moo doon yëf yi te ñun murit yi mel na ni ba tey comprendre ñu lool donc loolu moom aussi je tenais à ce que rappeler ko ndax dafa mel ni ñun comprendre ñu enjeu yi tey jii li koy firndeel rek mooy bari na lu ñu soxloo xam ne il faut nga dem dellu ci ñoom koo xam ne da nga koo jàpp nit yi àdduna waaye li jëm ci suñu wàllu santé wér yaram nga bàyyee leen ko li jëm ci sunu wàllu njàng ak njàngale nga bàyyi leen ko li jëm ci dajale alali askan wi nga bàyyi leen ko li jëm ci saytu kaaraange nit ñi nga bàyyi leen ko ba noppi nii di nit nit ñu baax ñooñu est-ce que est-ce que gënuñu ñu kon saydul xaw ma xaadimahum ki gën ci nit ñi mooy ki nekk ci seen service leen liggéeyal alors kon dafa mel ni enjeu yooyu waratuñ leen ko bàyyee te loolu nit ñi war nañ cee def ay jàngat waaye nii ñu bëgg a jàppee diine ji man daal diine ju lampañ la ju gàtt la yoo xam ne si wax dëgg yàlla euh, néew na doole lool te euh, ñàkk xorom